basumo basumo mbare suko nonko abidjan iba famale dia di ñëwaat wax ak sénégalais yi wax bu gàtt ndax démb dama xaw a am mépris ci magu réew mi man am na yenni bu ko maam yu màgget yi defee damay ruus moo tax tey ma leen tàppe xol yi tàppe xol yi si deal bi mooy ci dialogue bi tàppaas xel yi ci fu ñu jëm ci askan wi c'est très important loolu bu ñu tàppewul xol yi rek ñu changer débat bi yóbbuñu ci seen deal bi wax li fa waxu woon wala li fa amoon lu ñëpp seetaan ku mu neex wax waaye comme man nag wax daf may sonal <laughs> je préfère paas ndax yéen ñëpp a seetaan ñun ñëpp a gis gis ngeen na yéen jeunesse bi boo leen tàppewul seen xool fii ngeen nekk acharné wuwaat saagaat nday ngeen ni def parce que amu leen argument ma may kenn amul argument ndax kenn xamul ñu doon def ndax dañ doon waxtaan dañ doon dialogue wala dañ doon séminaire wala dañ doon business man ñooñu ñëpp intéressé wu ñu xam nga lu ma intéressé foog ñu tàppaas xel yi. actuellement foog ñu radical par rapport à ce système. il faut être très radical xam naa lu may wax pour ñu radical muuma bi ñu tëj. ne ko doo wax di wax si place ñun loolu ma may la ñu war a def objectif mais ay ville morte ak ville sainte ak ville dëboog moo tax maam yu màgget yi saña dawal seeni oto jóge fu leen neex dem ba jam ñaajo pour tàppeloo ñu suñuy xool c'est très logique te man damay am gàcce chaque jour damay am te yéen la jeunesse waxoon naa leen ko nee moment bi combat bi ñun ñii béjaaw dund ak système ba béjaaw dund ak ba nekk ay maam yu màggetul te code laa leen di wax ni de maam bu màgget ak maam bu màggetul bokkul ba doon ay maam yu màggetul ñëw taxaw fii di wax non non faaw ñu radical je sais de quoi je parle ndax bu ñu demee ba ñi nga xam ne seen gànnaay yi ñu yor moo ëpp doole conseil constitutionnel bi ñu yaakaar pour mu déclarer ñu élection bu ñu demee ba ñi nga xam ne arme moo gën a foor urnu ndax balu bopp ci Badio Camara coow lu jeex balu bopp ci Macky Sall coow lu jeex buñ demee ba foofu moo lay woon réew mi sëngëm na te ñooñu nag buñ demee ba ñoom ñaar ñii ne Bass du ma jiite ñii ne Amadou du ma jiite kon ngeen foog réew mi di dugg si guuta ci xeex lañ jëm de foog ñu xeex la xeexation xam naa lu may wax waxantuma de bu ñu xeexulee bëgg ngeen dem élection de mais ci laxas bi damay ragal yuuxu dina jib fuñ ko fageewul ndax élection boo xam ne Macky di ko organiser mais kan moo koy organiser France kan mooy France ki nekk di jalogewaat Afrique ki bëggatul ñàkk dara Afrique ba tax ko actuellement mu sañ dugg fépp def lu muy def te ragalatul lu muy def France mu may da koy jaral martaat ndax nguur boo xam ne président bi day nopp moroomam góor

def naa alerte si laa commencé ama duwee armée nationale ne leen bu ñu Amadou Mame Diop naree jiite ngeen katta ndeyu réew mi ñu taal ndeyu réew mi bu ñuy dem élection deux mille trente neuf ñu dem deux mille trente neuf on s'en bat les couilles mais y a de xam nga nag Sénégal fan la ñàkk jom yam yéen ñii kii séexlu def passation de service ak ay Bassirou Diomaye Faye ñu ñu war a wàccu wan naa su tey Amadou Mame Diop mu ñëw tey jiitu war ñu yóbbu élection quoi koo xam ne dënguru Marème Faye Sall te yéen Sénégal je pense que yéen la jeunesse dofu leen fa la yi doon waxee démb moo tax dialogue bi maa ngi gis ñëpp di xiiru di ŋaayoo loolu ni xiiru di ŋaayoo ah paa yi li ñu leen wax c'est bu bu Amadou Mame na naree jiita ndey réew mi mais ñu bàyyi ma ki yeggali dem organiser élection mbaa ñu xeex ndeyam affaire bi jeex man dëgg moo ma sonal la ah. soit dañuy taal réew mi yëpp déstabiliser yëpp du Amadou Mame Diop du Macky du armée française suñu armée lay doon suñuy doom ay waleen booy raaru ma dama mépris dama am mépris ci patriote yeeg ci waa askan wi yeeg ñëpp laa am mépris xam nga luy mépris da ngay dem ba da ngay tayal a wax ndax tayal wax bi da ngay gis ni politiciens yi ba tey dañuy fexe ba contourner coow li taf ko Sonko pour mën a def li ñuy def te yéen ñëpp koy nangu toog di dégluwaat naan conseil concerné la ñuy xaar may wax ñu may wax ay datu élection saa waay jomm naa liir yenn datu élection yi man bi le vingt cinq février passé laa pare si Macky Sall dootul sama président bi le vingt cinq février passé laa pare ci lépp loo xam APR nga bokk maman yi bu ñu la rayoon man damay tëgg tànn biir damay tëgg concert France man bokk ma ak yéen philosophie man ma yi xam nga fan toll si waa APR na xonk cër xam nga gars sax ñu ngi nekk fi di calculer gauche man na xonk cër laa nekk te dinaa leen prouver ne day xonk cër am na nag ñu ma woo naan ma noo bu leen saboté waxuma la saboté de ruux magi saboté dinañ ko def xam nga magi dugal na ay force pour lan muy signé amnistie xam na amnistie du pour Sonko du pour ñun man kenn rek ne woon na ma yow grand amnistie bi man leen eh man amnistie bi ñun ñi di live mais ngeen foog amnistie bi arrangé wu ñu mais ñun d'accord ko parce que on a rien fait mais pour man ñëw ñibbi si suñu réew au calme la mais on s'en bat les couilles soxlaaw ñu nday amnistie parce que ñun amnistie bi ça ne ñu regarde pas Macky Sall moo rey Moussa Fall moo rey Antoine Diome moo rey Marème Faye Sall moo rey Amadou kii booy Amadou Sall ray rey ñoom Doro Gueye ñoo rey ñoom Ilimane Lam mais c'est les criminels du pays ñoom Moussa Fall Madiambal Diagne mais ñoo ñëw def ay toj-toj Madiambal Diagne ñaata suuf la nungu waaw léegi ñun léegi ñun dañuy seetaan ñooñu ñëpp naan noo léegi pour jàmm am un imbécile un bas humain une espèce humaine comme Amadou maam Diop ñun daal dañuy nangu ñu sërëxal ñu ko quoi moom mu ñëw toog ne këm nit ñoom Moussa Fall ngeen foog Amadou Mame Diop mooy diriger dëkk bi. Macky Sall moo d'accordutul wax ak ndeyu France ndax li ko français yi def nii mooy dagg ndey xol bi bëggatul sax wax ak ndey tubaab yi moment bi moo tax xoola ñu d'accord wax ak tubaab bi la fiy bàyyi ndeyam Amadou Mame Diop ne gouverne rien Amadou Mame Diop dina d'accord Amadou Ba par force parce que France moom bu leen sonn li France bëgg Sénégal nii. bu ñu xeexulee moo fay am mu ñuy neex mu ñuy naqari ay Sonko day bokk Sonko du bokk bàyyi leen ba gars yi pare ci di ngeen xam ndax day bokk wala du bokk di ngeen xam ndax jomaay day bokk wala du bokk gars yi xeex bi tool na niveau boo xam ne calcul politiciens yi lañuy ñu war a jël teg fële jël journée ville morte yeeg lépp teg à côté teg pays mort assemblée nationale ku dem voté ji am amnistie ñu toj sa cottu ndey rey la ndax ñun ñu bokk si am amnistie bi yéen ñii nag yéen ñii muus yéen la jeunesse yéen ñii muus laay waxal loi si bi mën na dem ba décembre deux mille vingt quatre kon xoola yeew day jot li ngeen daan taal ñu leen ñu tëj li ñu leen daan jiin reykat c'est le moment nag ngeen def ndax boo leen defee gis na bu ñu xasee voté na si bi maa leen di wax de dinañu def lu ñuy def musa Fall teg veto ray nday la maximum ñëpp calmé wu am amnistie bi dina ko yóbbu ba décembre couvrir ko vous n'avez rien compris Ahmed Khalifa Niass dong dem ci débat bi moom moo wax man ni mu leen doon wax chaque jour kon pour war leen ne ñoom seen réunion yëpp fa lañ toll woon élection yi 2027 la woon ça je signe je persiste je je persiste je signe per persiste loolu 2017 bi ñu koy décidé Casamance la ma fekk moo tax bi ma ne prip dugg ci combat bi ma nekk ci niveau bi Casamance la ma coow lii fekk coow lii coow lii Casamance 2017 laa leen wax waxuma leen sax ren 2017. yàgg naa leen ko wax de Ahmed Khalifa Niass moo ko njëkk ni kii moo lay sonal moo lay remplacé Marème Faye Sall ne jóg leen si ñu ñëw Ziguinchor. seet si laay jug ba tey mu ngi fa set si fa ñu bëri ba tey mu ngi fa lañ jaar ci Kormak mu ne leen kii pétrole la boo ci sottee bu xasee tàkk boo ci sottee ndox day jëf mille loolu 2017 la force occulte ya boobu ñoom ñëpp a ngi Sénégal légion étrangère ñu bari ñëw nañ fi def formation lan moo leen fi andi woon kañ la ñu waroon ñibbisi 2023 ñibbisi 2023 c'était pourquoi ngeen foog teg Macky Sall bés accélérateur fu mu yem neex mais Macky réussir ko ndax Amadou Ba ñëw duulal ko moo tax dina ko rendi rendente lañ toll nii mais France encore la France va imposer sa volonté si on détruit pas la France au Sénégal man gis nga institution française yi ngeen di ragal wax Sénégal mbuur ngapparu waaw yooyu yëpp lañu ñu war a toj lépp lu fay mi tubaab dañ ko war a interdire foofu gis nga tant que mettre luñ leen leur vie là en danger ñun suñu combat ñu atteindre li ñu jëm parce que France lañ jotee jotee di noog Macky Sall Ziguinchor Abéné ñaa Niafra xam ngeen ñu def jeunes yi weekend bi dem dugg ci biir àll bi di jàpp jeunes yi à Abéné affaire bu mystique lañ def waa Abéné si ça jërëjëf mu ma woo ci weekend bi di jooy rek dama ko expliquer man na ko noo sañu loolu parce que ñu ngi libéré détenu mu ne ma si ba won ma vidéo yi mais ay kanamu xale da ci ak kanamam loolu la Macky Sall def Kafountine Abene Katong Niafra foofu xoola dafa dugg di jàppanteeg jeunes ndax lan laaj leen temps yi lu leen dal ci àll bi war ku ñuy xeexal amatu leen koo leen xeexal vous n'allez pas déstabiliser ce pays là à travers la Casamance ça c'est mort Macky Sall mu ngi jëm beneen affaire Casamance gis nga ndeysaan laay fëri bi mu leen naan coow li Casamance la comprendre leen woon fan laa doon waxee dam leen ne Macky Sall métti xeex bi Ziguinchor la koy yóbbu moo tax bu ko yóbboo Ziguinchor heureusement que pas Kourouma Sagna les vieux ils avaient trop compris ñu ne woon ça de la politique Sonko a commencé à de la politique laissons voir les vieux là buñ ma bàyyi woon ak ñoom bii heure Macky Sall am na lu mu bëgg bu mais nag ñoom duñu ay maam yu màgget xam ngeen luy maam bu màgget maam boo xam ne depuis 1960 mu ngi dundee intérêt Sénégal mu ngi dundee deretu Sénégal mais moom xam nga lu mu daan dundee ci deretu Sénégal sump soosu daan seen Sénégal la daan profité di duul ba am lu muy am di ci seet seetlu pétaaw yi daan am Sénégal la daan si siddéem konkorong boobu la daan profité mais maam boobu tey moo dem tey ba yàlla soxlaatul ay julleem yàlla si boppam dala wàññiloo say waxtu yow moomu maam toogoon démb di duul gars yi tàppe leen xol yi sinon rek mu mu njàng de ndax ñun ñëpp am nañu ay maam yu màgget yoo xam ñu ngi ci biir kër yi depuis 1960 ils sucent le pays. démb wax leen ma ban jeune bu am vingt 25 ans moo ñëw taxaw jël discours face à Macky Sall mii di dem pour wax ko dëgg kan am ay maam yu màgget yi see fa nekkoon. maam bu màgget mooy maamu ISEM bi maam bu màggetul mooy maamu anti waa magi Pastef maam bu màgget mooy maam bu bëri bàkkaar soo bëree bàkkaar da ngay ñeme yàlla ñeme yàlla mooy lan doo ragal a taxaw si mbooloo xeeb sa bopp ba tagg koo xam ne ab doome xaraam la mu leer ne ab doome xaraam la nga ne ko yaam a gën kon yow lan nga ay maam yi màgget dafa daje woon au nom di Père et di Fils et du Saint-Esprit amen lan moo tax toujours rek ñoom Sénégal ñoom ñii deux pour cent de la population ñoom bu ñu waxee rek ñëpp war tàccu ñun jullit anuñu ñun murit Bass Abdou Khadre sëñ Mountakha Bassirou Bassirou Diomaye Faye tey nag quatrième Bass bi ñëw dugg ñun jullit anañu mooy lan Bassirou Gueye kan moo war yàq Sénégal te ñu ne Sénégal dëkk jullit la dëkk l'islam da ngeen it tuul vous mentez man ceddo laa brut man kémit brut laa man maam ceddooy sama maam man bambara brut man ceddo si yéen ñu ngeen gëm jullit du fen jullit mën nga rey man rey nit li Macky Sall di ñu def nii rey je préfère que qu'on fasse des crimes man ñu rey laa moo ma gënal gis nga gis nga rey nit da nga koy noppal dóor ñit ki bal rendi ko moo gën xoo ko dóor nit ki bal rendi ko moo gën yóbbu ko ci sëriñ xam naa lu may wax leen day nit ñi mais nekk di xoo nit ñi nekk di fenantu nit ñi pour fitna gis nga fitna la la yàlla ni ku la teg fitna ku ne rey ko daggan ne te Macky fitna la teg Sénégal fitna sàcc biñ ko laajee yonent bi daf ko nangu mais fa ngeen xam ne naan sàngara fee nit naan sàngara wax la alxuraan ñit lu siit fen la kan mooy maam est-ce que démb gars yi ngir jëmmi Sénégal lañ demoon wala ngir dërëm damay wax ba si yàgg rek sama booy Ngagne Demba Touré bii gën a tax ma am mépris ci jeunesse sénégalaise man Ngagne Demba Touré tax ma may ay bantambaaw ak lépp seetaanutuma cottu ndeyam dootuma ko seetaan ndax la jeunesse n'a pas encore compris jàpp jeune mu jàkkaarloo juge ba saaga ndeyam yéen ñëpp ku nekk toog naan way c'est un héros et vous vous êtes quoi et nous nous sommes quoi yéen yéen yéen ñi di seetaan naan Ngagne Demba Touré góor la yéen ay ñan tappaas leen seen xel yi ngir yàlla tapas leen réseau yi tapas leen code deux cent cinquante yi xam ne mag ñi toogoon démb di wax ak Macky Sall maguñu leen gënuñu leen yéen leen sut si xel la jeunesse xam nga yéen lan mooy lan mooy seen doole tey ñun lu ñu amul maa ngi jooy rek jooy xool ndeysaan <laughs> adduna moo mystique da ngay màgg di gën a ragal <laughs> xam nga tey lan moo ñu sono man tey sama âge ñetti fan maa ngi tardé si Malgré Daro da ngay woo booy Sénégal yi xool ñi ñu ngi julli ñu ñu ngi si làmb ji ñu ñu ngi bëloo ko ñoom ñu ñu ngi si politique bi ñun suñu génération ñun liñ ñu yaree foog ngeen am kilifa foog ngeen lii foog ngeen lii foog ngeen lii te ñun tey suñuy doom tey loolu noonu la waaye yàlla baax na yàlla nee na yàlla nee na ñun loo wax ñoo la sëriñ bi nee na kon yéen cette jeunesse là yéen cette jeunesse yéen yéen ay anti islam mag moo ci gis mag yu passé fëpp man nag ñun ñëpp nay leer de mag moo ci gis moment yi mën na dem dialogue ndax ku dund nag dëmm ba màgget dën dëmm bi lekku la ah bu la neexee àndax ma mais yéen la jeunesse yéen ñaata la dëmm yi bii di Macky Sall lekk si yéen leneen Ablaye Wade waxoon c'est vrai ah, Macky Sall deret la yaayam doon dundee ñaata dëmm la Macky Sall lekk ñaata deret la Macky Sall lekk Sénégal ñaata doomi aadama la Macky Sall naan seen deret senegal ñaata ñaata dee ci rañam Combien de jeunes sont morts yéen la jeunesse di ngeen ñu létt mbaa ngeen firiñu la jeunesse foog ngeen léttuñu maa ngeen firiñu sincèrement la mun mënuma ko jiiñ benn acteur politique coow li mënut a nekk de bu ñu comprendre woon dialogue du am du ma ko jiñ benn acteur politique yéen la jeunesse laay waxal yéen ñi ne yàlla nee na ja al haqq wa ni'mal baatil yéen laay waxal yéen ñi nga xam kenn këful seen xel talu leen daaru musi c'est le borom c'est le borom daaru nekku leen ci yooyu yëpp yéen la jeunesse yéen laay waxal yéen ndax man kenn mënu maa tere gëm sëñ Moustapha Saliou te yéen mënu maa fexe ba gëm loo leen sëñ Moustapha Saliou ndax yéen am na fooleen leen ba noppi mooy lan rabbu samaawaati wa ma fil ard rabbu samaawaati wa ma fil ard mooy mais nag moo leen ne yow yow mii karaw bu ñuul yow laa soxla ngir nga defar sa réew yow mii am 19 ans yow yow mii am 18 ans yow yow le 2 avril yow bu jotee yaay wàcc na léegi Sénégal comme nii la xam nga romb nañu gat sa gat sa dëgg sa dëgg sa li ñuy dugg yàq sa yàq sa suñu maam Cheikh Tidiane si newoon na bu yàq jotee boo leen dof dofloo ba waa ISEM bi gën leen yàq yéen waa anti ISEM kon li li Sonko liggéeyoon yëpp égal à zéro donc Sonko li mu doon expliqué donc le projet égal à zéro bu yàq jotee bu ñu waa ISEM bi gën a yàq réew mi gis nga li ma ki demee léegi def déem mooy lan valoriser am na si reyante am na si reyante nag bii pas buñ ne prix yéen policiers yéen gendarme laa leen wax seen biir kër yi tant takkul tàkkul seen i njaboot takk coow li du jeex faut de crimes dëgg moom ma sonal de il faut des crimes ñoom fi ñu yegg ñun foog ñu yegg fa reyanteeg ñoom mu xonq tir ndax suñuy maam dignité lañ daan dundee du ñu woon ay maam yi astafurlaa de taxaw ci diggu penc bi duul boo ñibbee julli taru say salaatul fatiha baalu yàlla église catholique taxaw wax dëgg au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit amen alhamdulilah samay soxna yëpp ay gurmet lañ heureusement heureusement mosuma nekk ci jabaru jullit heureusement j'ai très tôt compris très to compris ce que c'est que la vie man bokk mag sax réseau très tôt la jeunesse benn dénk rek laa leen ni def Sonko fi mu toog na ñun ñoo ko fa bàyyi yéen yéen a ko fa bàyyi Ngagne dem Touré fi mu nekk yéen a ko fa bàyyi le 2 avril nag boo leen fogee ne parti armée bi dañuy nangu Amadou Mame Diop jiite dëkk bi wala ñu dem élection kilifa yi gis nga màgget yi nekkoon démb nii du ñoom kese feeñ de mais màggeti policier yeeg màggeti gendarmerie yeeg màggeti douane yeeg màggenu eaux et service di service d'hygiène màgget yëpp ñoo booloo ne Bassirou Diomaye Faye du leen jiite. naw naa leen coow li Macky def si tuuti ba mu joxe dëkk bi nag le deux xeexuñu. xeexuñu bu naree am di ngeen dégg yenn mag yu ruux su suuf ne ko Macky conseil constitutionnel dina ko ne Macky xoola dirigeel ba keroog élection am ce qui fait que mu gën a yomb parce que ñoom leer na leen ne bu dëkk bi buñ ko bàyyi ak Amadou Mame Diop ñu dëgg ndeyam buñ ko bàyyi ak Macky ñu dóor ndeyam bal wala Macky day génn daw mais Macky ne va pas gouverner ba dem élection bu passé le 2 avril kooku mënut a nekk. les officiers de rang yéen booy yët naa yi laay waxal. yéen booy capitaine yi lay waxal yéen booy commandant yi laay waxal booy réew maa ngi seen loxo tegootul ci loxo mag ñu màgget ñii lekk lekk ba ñu si bëri dañoo jaweet am cancer réew mi mënatul tegu seen loxo lii fi xew démb xale yëpp xam nañ ne ay màggatu duulkat ñun suñu ñun suñu génération kilifa yi lañ ñu daan duul ba foo leen gis raam ndekete ay duulkat la ñu woon ay nankatu sàngara ñu la ñu woon ay kattakatu caga la ñu woon ay doome xaram la ñu woon ndekete ñun kilifa ay doome raam rek lañ daan raamal yéen nag la jeunesse eh yéen laay waxal de gis ngeen li fi xew ñun seeni baay ñun seen maam lii leen doon dund lii lañ dund depuis soixante ans même système lañ dund yéen nag si yéen rek lay dépendre la balle est dans votre camp basumo basumo mbare suko nonko abidé iba famale dia le mouvement grand afrique kémique Diop bi dañ koy teg mu dem grand afrique kémique Diop on va regrouper tous les panafricanistes sénégalais autour d'un mouvement boo xam kémique pour développer le spirituel. Le spirituel est la science de Cheikh Anta Diop moo tax nag yàlla nañ dóor Macky Sall bal mu décédé ci biir réew mi wala mu daw génn ñëpp xam ne Cheikh Anta jóob romboon na luñ koy jiiñ di baa faamaale ja